bawol info moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey. bawal info ngeen a abonné sunu chaîne YouTube bawal info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag ki ngeen jàkkaarlool ci image bi nii di Ousmane Sonko dafa am ay kàddu yoo xam ne da koo yëkkati tey wax ci ñi nga xam ne dañ leen di dénk àllalu réew mi ñu damm ko dugal ko ci seen poos maanaam pour wax ju gën a leer mooy ñi nga xam ne dañ leen di dénk àllalu réew mi ñu sàcc ko Ousmane Sonko nee na ñooñu danañ ko goqi léegi nag bi Ousmane ko defee déclaration boobu dafa am ku ma wax mu ne ma usmaan Sonko ma ngi tiital nit ñi ma ne ko déedéet demewul noonu ndax senegal il faut ñu waxtaanee Sénégal il faut ñu bëgg réew mi ndax képp ko xam ne am na ñi ëpp ci sénégalais yi képp ko xam sonn bi ñu sonn jafe-jafe yi ñu am doo moso ànd doo moso nangu ab groupe bu ndaw di luubal alalu askan wi ndax ñi ëpp ci askanu Sénégal bu ñu bëggee faju duñu faju ñi ëpp ci senegal ñi ëpp ci sénégalais yi fajuwuñu faju gu baax ñi ëpp ci sénégalais yi naanuñu ndox mu sell ñi ëpp ci sénégalais yi amuñu ay dëkkuwaay yu baax ñi ëpp ci sénégalais yi seeni doom jàngul seeni doom jànguñu ndax seeni waajur amuñu ay moyen ngir man leen a dugal ca lekkool ba lii lépp nag li ko waral mooy alal ju ñépp bokk ñenn nit jël ko luubal ko loolu dafa war a jeex pour mu jeex nag dafa war a nekk combat sénégalais bu nekk léegi nag ki ma wax ne usman Sonko ma ngi xupp nit ñi ma ne ko déedéet discours bi ma dégg usman Sonko def ko ñaar la concerné ñaari pàcc mooy ñi nga xam ne pàcc bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ñoo ne woon yéen usmaan Sonko Jomaay ñoo ngi leen di dénk réew mi waaye bu ñu leen dénkee réew mi dañoo bëgg ñi luubool alalu réew mi indiwaat ko ngeen yoral ñu réew mi ci yornu sell ndax ñi wax loolu Ousmane sonkook ak Jomaay mooy ñi nga xam ne dégg nañ ci ay boroomu xam-xam ñu ne Sénégal réewu Afrique yi li ko ndóolal li ko nërmeelal li ko deltuloo ginnaaw mooy corruption mooy mal gouvernance mooy lu ñépp bokk am ñu jël ko luubal ko dugal ko ci seen poos moo tax Sénégal yi sonn tay yi damm jël réew mi dénk ko ñoom Ousmane Sonko te ñoom Ousmane Sonko ni ñu gañee réew mi dañ ko gañee ci yëg-yëgu sénégalais lambda bi mën naa ne sénégalais lambda bi moo voteel ñoom Ousmane ko Diomaye amul benn ñenn ñu def influence ci ñoom maanaam ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci bopp réew mi du ay sëriñ ñoo def influence bañ nekk ci bopp réew mi du ay journaliste ñoo dem ñoo def influence bañ fal leen Sénégalais yi ñoom ñoo xeex seenum xeex am seen détermination am seen yëg-yëg am seen confiance dénk ñi réew mi moo tax Ousmane Sonko nee na maanaam buy rendre compte ñenn lay rendre compte muy askanu Sénégal mooy ñii ma leen tuddal léegi nag discours bi son ko def mooy ñii leen tuddal ñoom la concerné beneen pàcc bi beneen pàcc bi mu concerné mooy ñi nga xam ne dénkoon nañ leen alalu réew mi ñu luubal ko dugal ko ci seeni poos mais ñooñu la mbir mi concerné dénk la alal réew mi nga jël ko luubal ko mais ki nga xamante ni kay dangaa aj dangay bañ ku teel mais man suma ajul lan moo ci sama yoon su ma su lan moo ci sama yoon si ku si ku teel moom moo tax wolof njaay naan ku aj day bañ ku teel discours Ousmane Sonko bi ku mu naqari wala ku ci gisul sa bopp xanaa yow danga bokk si ñi luubale alalu réew mi noonu la ma mbir mi mën a demee te tey euh, tey li ma ciy dolli mooy du caage ne ñi ñu dénk alalu réew mi rek ñooy jël alalu réew mi di ko dugal ci seen poos am na ñoo xam ne nekkuñu ministre nekk ñu directeur waaye yor nañu ay milliards yi milliards yi te loolu dañ ko war a lijjanti ñu si bari ay homme d'affaires lañ kon du caage ne war nañoo saytu ñi ñu dénkoon àll réew mi ministre ak DG nangam ndax dafa am ñoo xam ne ay courtier lañu ci lañu amee xaalis ak influence bi nga xam ne tey moom lañ doon intervenir moo xam ci ay marché wala jege gi ñu jege woon couple présidentiel dafa bëri ñoo xam ne ci réew mi dénkuñu leen woon ay ndombay tànk te dañoo yor ay milliards ci réew mi te ñooñu nag jar nañoo saytu seen alal ji fan la ñu ko jëlee ndax dafa am loo xam ne mënut a nekk xam nga senegal yi boo waxee ñu ne la dafa liggéey alalam am na loo xam ne liggéey mënu ko maye ci temps bu gàtt boobu mënut a nekk ku gëm ne mën naa nekk nag loolu sa affaire la waaye tey li Ousmane Sonko wax dégg naa conseil des ministres ñu ne quarante cinq milliards yi ngeen doon dégg ci wàllum ñu ne dañ ko jëndee ay armes pour waa Eaux et Forêts jamono yi Abdou bi mu nekk ministre de l'environnement xam ne boobu sax dañoo waxoon ne comme armée la amul appel d'offre ndax mbirum secret défense waaye ki Sénégal jëflanteel woon sax ba mu andil ko arme yooyu sax am réewam ñoo ko doon wër ci ay ndëngate yoo xam ne moom lañ ko doon toppee foofu léegi ñii ñu dénk réew mi ñu ne loolu ñoom dinañu ñu si dinañu si def la lumière maanaam euh, dinañu ko dinañu ko leeral lu jëm ci wàllum suuf si tamit Ousmane Sonko nee na danañ si taxaw ba lépp tego ci yoon képp koo xam ne jëlul jëlul nga alalu jàmbur euh, nga daal di koy nga daal di koy delloo léegi nag képp koo xam ne tamit ndax dafa bari sénégalais yoo xam ne tooñoon nañ leen jël seen alal ñu yóbbu leen fi mbaxana doonee benn te mujjul fenn tey am na yéen a ngi dégg fan yi am na euh, benn homme d'affaires bu ñu Euh, bu ñu def euh, garde à vue bu ñu teg loxo mooy door a géey am koo xam ne daf ko porter plainte mais xam ngeen ne door a Gueye meloon na noo xam ne ci nguuru Macky sàll porté woon ko plainte ñu woola ko yombut loolu nag ndax jamonoy Macky ak jamonoy Ablaye Wade ku jege nguur boo ko porté plainte du mujj fenn loolu nag dañoo bëgg mu jeex ci nguurug ñoom Ousmane Sonko ak Jomaay dañoo bëgg ci nguurug Ousmane Sonko Jomaay li ñuy woowee rupture mooy man bu ma ab ministre tooñee wala homme d'affaires bu jege Sonko ak Jomaay bu ma tooñee su ma ko porté plainte yoon man koo woo woo ma dégluñu ñu xool fan la dëgg gi fare ndax jamonoy Macky Sall gis ngeen ne Guy mari Sagna attaqué woon nañ ko fii ci Mali ndax mu porté plainte kenn faalewu ko bëri na ñoo xam ne tooñoon nañ leen ñu porter plainte kenn faalewu leen ndax la ko waral mooy ñooñu influence bi ñu am ci état loolu nag dafa war a jeex tey ñi nga xam ne tax ñooy opposé bokk APR xam ne waa APR fi mu nii moom euh, ñu si bari seen xol yi neexul maa ngi leen di massaw tey ku bokk APR sax war na porter plainte ku bokk Pastef ku bokk ci nguur gi ñu convoqué leen déglu leen loolu mooy rupture te loolu tamit bokk na si li ñuy xaar ci régime bi nga xam ne tey mooy régime bi fi nekk waa APR nag euh, dañoo soobu jamono jii nag si wàllum opposition bi léegi nag tey liir naa commentaire ci internet bi ñu wax ne journaliste yi jamono jii ñoo ngi mañax mañaxi li tax journaliste yi seen xol tàng mooy euh, impôt bi ñu njortoon ne Macky Sall baal na leen ko fekk Macky Sall na leen a tëgg wëndeel moo leen metti te jomaay neewoon na journaliste yi bàyyi leen lu yomb tey fay impôt ak journaliste yi nga xam ne convention yi nga xam ne tey dagg nañ ko léegi nag am na journaliste yu ñu convoqué waaye journaliste bi nga xam ne mooy joxe xibaar askan bi dañoo am sañ-sañ euh, jot ay xibaar mais ban xibaar lañ war a jox askan wi ak nan lañ leen ko war a joxe ak ban xibaar lañ war a fësal ci mbedd mi mais dañuy tere bépp journalist mu joxe xibaar boo xam ne mën naa yëngal am réew mën naa nërmeelal am réew rawatina ci lu jëm ci wàllum armée bi nga xam ne marché yi ñuy jënd sax ci armée dañuy wax naan loolu du am appel d'offre ndax bëgguñoo xam lan la maanaam li ñu wax secret défense maanaam armée bi lépp luy indi jaxasoo réeroo ci biir armée beeg lu ko jege fee la ñuy entraîné ak arme yi lañ yor ak nangam nangam ak position biyeeg position baak xel yooyu yépp dañ koy tere ay armée bi dañoo mer ak bi kontaan nañoo armée bi nangam ak nangam nangam ak loolu bépp journaliste bu responsable. booy bind ci armée bi war ngaa xam sa mbind fa nga yam ndax dafa am loo xam ne boo nekkee ci métier mi tamit tey bu ñuy nelaw tey ba yàndoor bu ñuy nelaw ba yàndoor ginnaaw yàlla armée bi la mooy ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi kon journaliste bu ci bind vraiment danga war a xam li nga ci li nga ciy bind euh, léegi nag euh, mbokk yi Sénégal dafa jot ñu waxante dëgg ndax man mii di wax ak yéen day xam naa ne ñi ëpp ci sénégalais yi sonn bi ñu sonn jafe-jafe yi ñu am ndóol gi ñu am du du seenug yaafus moo tax ñu ndóol du seenug yaafus moo tax mënuñoo jënd ordonnance waaye li waral seenug tumuranke mooy ay njiit yoo xam ne maanaam bëgguñu réew mi ay njiit yoo xam ne dañoo jubati ay njiit yoo xam ne bëgguñu askan bi ay njiit yu ñàkk yërmaande xam ngeen ne ñàkk yërmaande weesuwul xaalisu Covid 19 ay nit di ko luubal ay nit di ko lekk tey jamonoy Covid 19 xam ne àdduna bi yëpp ñoo ngi takkatoo di dajaleem xaalis àdduna bi tiit Sénégal yi ñu ne leen bu leen génn région yi couvre-feu bi mel ne tulleeg màlle <coughs> euh, bu leen nuyoonte gi <coughs> Sénégal yi tiit Sénégal yi dajaleem xaalis ferrailleurs yi joxe journalistes yi joxe. homme d'affaires yi joxe commerçant yi joxe étudiants yi joxe sëriñ si joxe ngir ngir ñu faj askanu Sénégal Sénégal yépp tiit jamono jooju am na ñoo xam ne ñàkk nañ yërmande di dem di luubal alalu Covid 19 te ñu koy luubal amuñu benn jafe-jafe àdduna avant corona sax amuñu jafe-jafe àdduna bàyyi ba corona ñëw ay sénégalais am jafe-jafe ñu bëgg leen a yokkal ay jafe-jafe ci loolu ndax tey ku luubal alalu Covid 19 ñi faatu sax am na si kaa yoo xam ne yow man nga si am part de responsabilité ndax buñ la jëndaloo ay masque jëndoo ay masque wala ñu jëndaloo la gel jëndoo gel wala yeneen xeet jëndoo ko ba ni war a doyee doyewu ko ba ñeneen loru yow da si am part de responsabilité ñàkk yërmande dafa commencé foofu léegi nag sénégalais bu ñu woo bu ñu wooloo kenn pour mu ñëw leeral. Euh, dina am ñoo xam ne danañ génn ci presse bi société civile ay journaliste wax ne ñii dañuy fayantoo ñii dañuy nàngam ñii dañuy nàngam sénégale yéen ñi nga xam ne tey yéene sénégalais lambda bëgg leen seen bopp bëgg leen réew mi tey suñ dund gi dafa war a changer suñu nekkin bi dafa mën a changer bu leen kenn gëmloo kane leen nii ñuy dundee ci jafe-jafe mënut a soppeeku bu leen ko kenn gëmloo bëri nay réew yoo xam ne Sénégal moo leen tane woon aller retour te réew yooyu raw nañ Sénégal li tax ñu raw Sénégal mooy doxal dëgg bañ a maslaa ci képp kuy luubal alalu réew mi discipline comportement bu baax tax réew yooyu di avancé Sénégal mën naa avancé mais bis bu set nga dégg ko taxaw fee ne Sénégal mënut a avancer Sénégal mënut a développé nangam nangam. gàtt xel foofu la commencé sénégalais yi bu leen neexoon maanaam 40 pour cent ci sénégalais yi bu leen neexoon léegi tey Sénégal soppeeku boobu ma na ko waxati mais dafay am ñoo xam ne seen rôle rôle bi ñuy joué mooy nan laay def ba découragé loo sénégalais yi nan laay def ba découla découragé loo sénégalais yi ba duñ gëm ne Sénégal mën naa développé te loolu du dëgg du yoon Sénégal bu développé ñun ñépp la développeel Sénégal bu baaxee ñun ñépp la baaxal tey ñun suñu doom yi ak dañuy bëgg tey bu ñëwee maanaam euh, ñi nga xam ne sax ay célibataire lañ dañuy bëgg ëllëg buñ demee ba am doom fekk réew mi mel na noo xam ne seen doom yi danañ jàng ci école yu baax seen doom yi dañuy dund dund gu baax ndax Sénégal nag da ngay gis aña fi am reera fi ndekkee fi am añ reer mais li ñuy ndekkee li ñuy añal li ñuy baax li ñuy reere sax ñi si ëpp ci askan bi maanaam dañ koy forcer seen bopp waaye nekkul dund gu baax goo xam ne baax na nam war a baaxee dañ si lekk ba suur rek waaye dund gu baax dëgg dëgg dëgg ñu ëpp ci Sénégal yi ñu ko naan gu baax xam nga lekk ceeb rek jàpp na lekk nga nangam nangam waaye ceeb bi ñu war a lekk dëgg saytu ko ni ñu ko war a saytoo Sénégal yi dund ni ñu war a dundee dund gu bakkane googu dund gu mën a Euh, dund gu mën a am la lenn daal xam naa ne man duma ci maslaa te kenn waru cee maslaa mooy ñenn luubal alalu askan wi ñu naan règlement de compte la Ousmane koy def wala règlement de compte la Diomaye di def discours bi Ousmane Sonko def ne ñi nga xam ne dañ leen a dénkoon alalu réew mi ñu damm ko ci seeni poos danañu ko génnee loolu sénégal yi dañ see war a ànd sénégalais yi dañ see war a ànd kon mbokk yi ñu leen di sant di leen di gërëm. Sénégal asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar di leen jaajëfal fas yéene seq ak yéen bu gàtt jëmale ko ci li ñuy dëgmal mbokk yi bi ngeen ñu denkee réew mi ak léegi bi ngeen jëlee seen tànneef tànnee ko son excellence le président Bassirou Diomaye fay ak tey jii bi ñu defee suñu premier conseil des ministre ak tey jii muy le 9 avril naa. yeggagul ñaari weer waaye lu bari ci yéen dana dem ba jàpp sax ni mbir mi weesu na ñaari weer li ko waral nag mooy bi ngeen ñu dénkeeg léegi nelawuñu lekkuñu dudul jublu ci liggéey bi ngir am ay résultat fii ak jamono yoo xam ne kenn ku nekk ci yéen dina ci teg bëtam loolu moo waral lañu ñu ak yéen ndax nun ñu layoo kenn ku dul askanu senegal layewuñoo kuy politique layu ñu layu layoon ak kuy tas xabar ñun kenn la ñuy layanteel mooy kii yéen ñii nga xam ne yéenay askanu senegal moo tax saa su ne ci jamono dinañu dellu siwaat waxtaan ak yéen fësal liggéey gi nga xam ne moom la ñuy def te di ci woo képp koo xam ne sopp nga ñu nga jublu sa say mbir ci fësal li nga xam ne lu ama am solo la loo xam ne ñu ngi koy liggéey te buñ ko yàkkee bu soobee yàlla ñëpp dinañ ne ah xalaatuñu woon ni lii mën na am senegal ci anam googu laa ne la ñu waxante li waxante woon ni yéen askanu senegal mooy bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu li nga xam ne moo fi am te ñëpp xam ko mooy ku ñu dénk nga jël alalu réew mi yëpp damm say poos ak say poosu mbokk ak say su xarit rawale alal génne ko réew mi non seulement dina dakk waaye ku fi guuxoon di nga ko goxi ñoo ngi ci liggéey boobu te ci fan yu néew di ngeen gis résultat bi xam naa looloo tax sax ngeen gis yëngu yu temps yi ku ne di yooxu ku ne di yónnee ñu lay waxal waaye ma bëgg a dalal seen xel fii dara du fi yëngu ndax dal rek a fi am jàmm rek a fi am ñaareel bi waxoon nañ leen nii lii nga xam ne mooy li ñu yàlla wërsëgale ci alal lii nekk ci or li nekk ci zircon lii nekk ci phosphate lii nekk ci pétrole lii nekk ci gaz ak yeneen ak yeneen ak li ne sax ci suuf si nga xam ne ñu ngi koy dagg di joxe mu am ñenn rek ñu ko séddoo woon wala ñu dem lënkaloog ay waa bitim réew ci anam yoo xam ne baaxul ci réew mi ñu ne leen woon bu ñu ñëwee dinañ ko saytuwaat la ci dul yoon ñu delloosi ko ma gaaral leen ni ñu nga ca loolu te ci fan yii di ñëw di ngeen gis liggéey giñ ciy liggéey ñu waxoon leen ni. dinañu liggéey ci li nga xam ne dina yenni askan wi dina wàññi coono askan wi ci li jëm ci dund gi loole ñu ngi ciy liggéey ànduñu ceeg benn pression nag waaye ñu ngi ciy liggéey te ci fan yu néewar dinañu ñëw ne askan wi résultat baa ngi nii ci li mën a nekk tey ak li mën a nekk ci kanam ak li nga xam dañ koy liggéey dans le long terme ñu waxoon leen ni dinañu góorlu bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu fexe ba li nga xam ne mooy yitte yi wala li nga xam ne mooy li ñuy jiital mooy nu ñuy def ba dajale koom gu doy dugal ko ci mbay mi dugal ko ci càmm gi dugal ko ci napp gi jaare foofu taxawal li ñuy wax industrie ay usine ba loolu mën a jur ci réew mi koom te lu jur koom andi liggéey lu andi liggéey wàññi ndóol liggéey boobu ñoo ngi si te lii ma wax ni yëpp ñoo ngi koy tënk ci ñaar lu matul ñaari weer ñu ci liggéey liggéey goo xam ne amul noppalu kon li ñu diglante woon ak yéen di ngeen ko gisal seen bopp ci lu soriwul rek di ngeen ko gisal seen bopp ci màndaa bi yépp ndax gor lañu te duñu wax muy dañ te benn xeetu politique bi ñu xamoon dina dañ ci Sénégal ba faw gëm naa ne bu ñu paree li ñuy def nii bëri na ñoo xam ne dootuñu tax ñeme taxaw ci kanamu askan wi ne leen jox leen ma nomb tànk loolu nag neexul ñëpp moo tax weqatu bi bëri moo tax coow li bëri waaye ñun dañoo ànd ak dal ak tey te wax sénégalais ni nañu tëdd nelaw dal ak tey ak jàmm rek mooy am ci réew mi jàmm jooju nag dafa war a ànd ak ñu bëgg suñu réew bëgg suñu réew mooy léeg-léeg réew du état rek moo koy développé président Diomaye fay ñun ñëpp ànd fal ko waaye moom dong mënul defar réew mi man mi mu tabb may ilimaanu jëwriñi mënuma defar réew mi ak ñi ma àndal ñëpp am na luñ ci mën am na lu ñu mën a tële surtout réew moo xam ne dañ koo fekk ci ndool bugg koo yóbbu feneen moo tax ci anam yooyu nag day laaj ñuy daje sénégalais yëpp di daje léeg ñu am lu ñu bokk ne lii dañ koy defandoo loolu solo li tax mu am solo mooy benn day gën a dëgëral diggante yi ñaar day gën a feddali bëgg gi ñu bëgg suñu réew li ñuy wax patriotisme moo tax ñu ne woon programme économique ñëpp xam nañ ko yeneen programme yi nga xam ne réforme yu meeg yu mag yi la nga xam ne muy réforme justice bi ndax ñëpp gisoon nañ li fa xew muy réforme système sociale bi muy réforme euh, finance publique yi muy réforme diplomatie bi muy réforme état bi ak administration bi yooyu yëpp dinañ ci ñëw benn benn di ko def ngeen teg ci seen bët waaye ci suñu programme dafa amoon beneen pàcc bu am solo mooy li nga xam ne dañ ko tuddee civisme wala citoyenneté moo tax bu ngeen seetee conseil des ministres ñaari weesu yëpp wax nañu lu jëm ci service civique national président la république dénk ko primature muy lu ñuy laat ndaw ñi particulièrement ndaw ñi ñu mobiliser leen ci ay mbir yoo xam ne ñu lënkaloo ceeg armée bi njëriñu réew mi lay doon dinañ ci am formation dinañ ci am certification waaye dinañ ci jëriñ seen réew loolu lu ama am solo ci réew mi ñu nekkoon kon programme civisme boobu programme citoyenneté boobu la ñu bëgg a lancer moom lañu ñu bëgg a door samedi bi di samedi premier juin incha allah ci naka son excellence président de la république wax na leen ko démb mooy dañu ne ñu ngi dëgmal nawet ñëpp xam nañu ni Sénégal nawet dafa fara ànd faral di ànd ak ay problème ñun gëm nañ ni fii leeg lu néew ci ay at dinañu regle problème yooyu yëpp ba mu jeex incha allah waaye dañuy doog a toog kon ndànk-ndànk lañ ciy dem te bu ñu demoon sax ba ba lépp mate du tee nañu continuer di woo citoyen yi ñuy génn di bokk ay liggéey ngir luy defar réew mi ñu ne kon woo nañu képp kuy sénégalais xeebuñu ci kenn góor jigéen mag ak ndaw samedi 1er juin bi moom président république moo koy jiite dina génn moom ci boppam sol blouson am wàcc ci terrain bi man mii ak gouvernement bi ma jiitee jiite dinañu génn sol suñu blouson wàcc ci terrain bi képp ku am nombal tànk état di nga wàcc ci terrain bi ñu ne kon mboolem seen citoyens yi nañu ànd ñu génnandoo ñu lënkaloo ci nag ak l'armée national su ma nee l'armée nag lépp xaj na ci l'armée bi ngeen xam ma nga ca gendarmerie ma nga ca police ma nga ca waaye sapeur pompier ma nga ca service di d'hygiène ma nga ca keneen ak keneen ak ñi nga xam ne seen dañ leen dañ leen féetale loolu ñu mel ni ay Sonaged lu mel ni ay UCG ak keneen ak keneen ñu boole li ñu am yëpp ci jumtuwaay yi daa di dem defar suñuy gox defar ko commencé ko ci lépp li nga xam ne ay canal la ay caniveau nga xam ne ndox mi ci lay jaar la fa nekk ci ay saako ki ay mbalit yi nga xam ne moo koy bloqué ñu génne ko lépp li nga xam ne place publique la ñu defar ko ba mu rafet ak yeneen ak yu mel noonu lii dafa yitteel lool lool lool président Bassirou Diomaye fay ci programme am yitteel ñu lool lool ba ñu ko doon def ci jamono joo xam ne egsee guñu ci nguur gi kon may dalal xelu sénégalais yi li ngeen ñu dénk ña nga ca te seen xel dina seen xool dina sedd guy xam naa ni sax sedd na ndax yéen a ngi gis jéego yu ñuy teg xam ngeen ni